la chronique People. Toc toc, équipe matinale, jox naa leen nag ku nekk seen nuyoo te it di nangu seen fay ñu dooree nag seen people lu bés bi ak yi nga xamante ne nii daal moom mooy Penda Guissé ñu koy wax Pendo Guissé moom nag mu ngi réclamer nag xaalis boo xamante ne nii nee na daal depuis 2015 la ko ngoone Ndour waroon a jox xaalisam ndax ay publicité yu mu doon def pour waa jooni jooni te it xamle na ni daal waa des médias ñoom fay na nu seen wàll ba pare kàddu yi nag mu koy adressé waa Sodav particulièrement Ngoné Ndour ak Guissé Pène moom daal jàpp am daal fu mu mën ci dugg xam na fa mu nekk mu ngi ca ñoom rek ba tey rek ci seen people ñu ñëw nag ci ki nga xam ni mooy Selena Gomez gannaaw nag ba mu defee tournage film bii nga xamante ne mooy The Day Don't Die moom nag mu ngi wane mbégte woo ma ti jàpp na ni kontaan na loola te buy def liggéeyam te amu ci benn mbégte moom daal jàpp na ni da koy bàyyi teg ko fee dem seeti leneen gannaaw ba ñëpp kontaanee nag moom nee na xolam sedd na te ñi nga xam ne it ñoom la doon partagé le plateau wu film nekk na ñoo xam ne ni ay acteurs yu ñu ràññee la te it yu ñu jox respect la mu ko joxe woon gannaaw nag ba film bi génnee fële ca New nag ci lënd bii ci chaîne bii di Extra TV moom nag wéykat bii di Selena Gomez mu xamle ni honnêtement daal mooma jàpp na ni moom bëgg na liggéey lool te it bëgg na it di ci am bànneexu bakkanam ba tax nag muy xamle rek ni mu ngi waajal benn album bu bees pour ay fan sàmm gannaaw ba mu jógewee nag ci film yii moom daal xamle na ni àdduna daal dara jaru ko fi jarul xiiro jarul ngaayoo lépp looy def rek na nga ci am mbégte bu mat sëkk kon nag mbégte boobu noonu yamul Sénégal dong de américain ñoo gën a mën a gañe xaalis waaye day fekk rek mu doon seen bëgg-bëgg ñu dem ci it ba jeex mu nekkoon seen people lu bés bii ma leen di jox dig daje ba suba. voilà. <laughs> Merci beaucoup Rahma. Ah bah je sais pas, moi j'ai pas de commentaire à faire sur le sujet. Rahma, Rahma. Problème, problème qu'on porte peut-être entre Ngon et Ngour, Guissé peine, euh, peine de Guissé mais moi bon. je trouve que c'est un peu flou quoi L'air, l'air dina quoi parce que on nous parle de on nous parle de benn kii buy defar affaire lu bu doon defar affaire lu xaalis transfert d'argent nekk ci beneen euh, entité on nous parle de de de de de Ngoné est-ce que Ngoné mom certes mën na nekk ci mais est-ce que moom Sodav mom moy dirigeante affaire yi pas non mais je pense que ça peut que deux entités différentes partagent un même produit. ça peut arriver par ah hein. rapport à des productions. qui def production am aspect aspect ça se fait dans deux entités qui ont la ah, même chose mais après derrière euh, quel est le contrat qui a été signé monnaie qu'on nekkoon voilà la monnaie qu'on li lié exactement quelles sont les les charges? parce que moi j'ai écouté mais mais même avant qui dit quoi avant Rahman, dit quoi man déglu na interview qui bi ci ci internet mais man mhm. comprendre comprends. xam ah non, comme li may de contrat. rek gis nga buñu amé ay contrat dañ koy def kenn du ko yek bu xaalis bi génnee ci yoon bu normal kenn du ko yëg. pourquoi kon bu <laughs> amee problème mënuñ ko lijjanti. waaw mais parce que non mais parce que tamit le problème il est très simple c'est-à-dire que parfois nga topp sa alal ba dem ba dootoo amati solution. tu cherches une autre solution. bëri na fi ñoo xamante ni ils ont des problèmes d'argent des gens qui ne leur doivent de l'argent